jafe na ngir nga déplacer ci biir dëkk bi li ko waral mooy yoon yi day faral di am ay taataa ndox chauffeur yi ci bari dañuy gaare seeni oto ngir bañ a liggéey. non comme bu tawee nii dëkk bi day bari ndox te wóor te wóorul waaw mën ngaa dugg ci ndox fekk fa xeer ah, sa quartier bi mën na jee toj nga yàqule bu tawee nii gars yi aju gaare seen oto yi quoi. tali yi baaxul. yàggut mais maire mooy mooy promo ville c'est essentiel. mais nañu dimbali si tali yi waaye ngir yàlla yónnee bi. assainissement rek bu ñu amee assainissement bu baax xëy na ndox mi dina wàññeeku comme fu mu nekk nii am nañ géej bu ñu defee assainissement boo xam ne tiwo yoo xam ne mën na koo jàllale géej dina baax ci askan bi ndax xam naa ne askan bi dëkkuñu ci kaw tali am na ñoo xam ne fu ñu dëkk nekkul ci kaw tali foo jaar oto dem ko. boo demee ay côté zone foofu nga xam ne laa la wax ni ban kese la am na foo xam ne oto mën faa dem. biir loolu nag ñu gis ne taataay yi ak mbalit mi day faral ba déborder ci biir dëkk bi comme fii ci gaaru Ceex bu mbuux daam bi ñu fekk fii muy bale boppam di wax li ko ci métti. fii moom mbalit bi daf fee bëri te saa yu tawee rek ndox mi ak mbalit bi dañ fiy jaxasoo dañ fiy bëri ñooy obligé à chaque fois di ko nettoyer. ñu ñaan nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy nettoyé ñu fi ñëw régulièrement di ñaan tamit monsieur le maire mu jàppale ñu ci ndax saa yu tawee ñu ñooy obligé di ko def. saa su nawet jotee nag jafe na ngir nit ñi mën a dem ak dikk ci tali yi li ko waral mooy ndox mu bari mi am fii loolu nag lay askan wi du dund at mu jot ñuy ñaan ñu jàppale leen si.